ma ngoog alaaji junj na ko léegi moom ak ma jigéen ci lañ waroon a door tey nag dañ koo dugal ci li nga xam ne mooy cadre rumeur bi pour bëgg cee indi suñu xalaat ak it loolu naka la demee muy daal Aby Ndour mi nga xam ni démb gis nañ ci benn vidéo bu gudd bu dem ci vingt minutes cinquante huit secondes mu wax ci yu bëree bëri ca biir nag wax na ca ni euh, Pierre euh, Atepa Goudiaby daal am na lu mu seq ak moom wala lu mu bëggoon a seq ak moom ñu déglu. bu bëccëg jotee nañu wootante ma ak yow papa et fille bu guddi jotee ñu seq leneen dinaa la jëndal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 man yàlla teral na ma gàddu ma. yàlla teral na ma gàddu na ma loolu di kàddu Aby Ndour moo ko wax ci koo xam ne daal nee na ko nee na bu bëccëgee nañu dund papa i fii waaye nag su guddigee ak nam ko waxee lam ko waxee ba àgg ci mën a yëkkati xaalis bu bare bari lu toll ci lim bu mu wax jox ko ko ngir. nekk ak moom loolu itamit di kàddu yi Aby Ndour moo tax euh, site internet yu bare bari reprendre reprendre nañ ko ñi tuddee ko santage ñi tuddee ko accusation waaye lu mu ci mën a doon lu nekk daal en tout cas mbir la moo xam ne jóge na ci làmmeñu Aby Ndour dem ci ki nga xam ne mooy euh, Pierre Atepa Goudiaby muy koo xam ni euh, ku ñu xam la ci réew mi ndax am na ak amul ak lu mu ci mën a doon daal mbir la mu yéeme mu am moo xam ne daal bu xewee loxo dematina na gémmiñ Mm-hmm. en tout cas man de wax dëgg yàlla abindu fulla ak fayda laa ko xamee ndax euh, kenn mm. mësu koo dégg si yoo xamante ne nii ku koy xool di ko xeeb la am na fulla am na fayda donc su demee bay wax yenn yi rek mm. peut-être man si sama gis-gis mm. dafa am dafa am wax dëgg yàlla parce que tamit mënul tëb tëb nga parce que yàgg nañ fi gis ay nit di génn di publier ay vidéo mm-hmm. te sur le coup bu fekkee ay kilifa la ñuy waxal police day dem këram daal di koy jëli. Mhm. te dafa mel ni kenn jàpp ko si si lu ma dégg. bu fekkoon lu am la kon di di dinañ ko dinañ ko yëg. Mhm. kon lu mu wax daal wax dëgg yàlla comme ni mu demee rek si ñee. Mhm. gis nañ ko fi ku fi tuumaal ay gendarmerie gis ñu fi tuumaal ay ñeneen ak ñeneen Assane Diouf a ngi wax na fi lu nekk. te ba ñu paree dañ leen a jël si. kon donc moom lu mu wax daf ko wax ba pare toog këram. kon loolu wax dëgg yàlla man de ah wax dëgg yàlla man man man moom ni ma xamee abindu xaw ma ko sax mais après ni ma ko gisee. image am image gisuma ne moom dafay wax waxu caaxaan ko mhm. mhm. jigéen ñi nañu moytu di làqatu. Mm. fii ñuy làqatu. Mm. muy fan. que xam nga tëbuñu tëb. Mm. même bu dee proposition yi am na. waaw ñu tëb rek. proposé ko am na fu mu jaar. waa parce que am na yeneen. may ma ma yeggale <laughs> doo abi <laughs> abi de moom moo wax dégg abi wax laay wax li ma dégg laa ci laay ci laay commenté mmh. jigéen ñi nañ bàyyi de yàlaqatu fii mmh. dafa yomb quoi mmh. parce que bu fekkee ne yow ak nit da ngeen a séq dara ngeen am fu ngeen jaar parce que balaa lii ñu koy promettre yëpp balaa ñu koy promettre am na relation boo xam ni am na entre yow ak nit ki d'abord. parce loolu indi nañu seq papa euh, papa et yooyu yëpp bi ñu waxee loolu freiné woo ko dès le début. Mm-hmm. ci biir ni nga xam ni noonu la waxee. Mm-hmm. mu am yenn yoo xamante ni bii am na am yenn yoo xam ne lan moo waral nag tey. Mm-hmm. mu mën a ñëw nag toj li nga xam ni mooy kaas yi. waaw bi lan moo xewaat ci diggante bi loolu tamit aussi dañu ko war a wax mu nekk loo xam ni lu leer la. xam nga tey. jigéen ñu bari dañuy def benn affaire boo xam ni. ku mooy moytuwut dinañ la ci pëttaxal. waaw yu mel na tey jii am man gis naa ñoo xam ni accusé nañ leen ne leen. Mhm. dañ doon def promotion canapé. te jigéen ci si boppam ñoo doon bëgg a def promotion canapé. affaire bi mooy ñu ñu kii. mooy ñu ne ñu dañu bëgg a def promotion canapé am na ñu bari ñu koy def. dëgg la ñoo la ñoo lay pousse ci man gis naa koo xam ni taxaw na ne diw daf ma doon santage pour gélo ma nangam. waaw te ma xam lépp ni nga xam noonu la demee te du dëgg. Ah, te diw moomu sax nekkul ni moom moo ko jëlee woon ca loola. Hmm. ca jamono jooju. mais après def na ko góor ñu bari naan diw saay saay la. oh xam nga li garaaw. Hmm. mooy bu fekkente ni bi dem nga ba nga xamante ni bi mbir yi say affaire peut-être doxatul wala bloqué nañ leen. Hmm. nga génn pour dóor benn bam pour détruire nit. c'est que tamit loolu. nañu loolu da nga jàpp détruire nit yéen ah, mais quand même bu tey bu ma jekki jékki woon. mooy ma jigéen wala keneen daal na sa tey ñu ne ma jigéen jóge na fi ma jigéen daal ne waaw Sa Ndiogou de vraiment daf ma bëggoon a tëddee ma bañ mais tamit yëpp dañ naan mais c'est vrai waaw xam naa saay saay la gars yi la ñu wax directement non mhm. sa saay saay bu mag la mhm. kërëb kërëb nit ñi duñu jéem a xool sax saa ni mu nekkee woon démb ak bërki démb ak bërkaat démb bërkaataat démb duñ jéem a xool loolu quoi mais nangam da nga may déglu ma wax la c'est que man dama waxuma ne lii mu wax dëgg mais dama bëgg rek góor ñi mhm. dama bëgg nit ñi analyser ñuy def taxaw seetlu. ci mhm. jigéen ju tëb tëb wax. wax dara waaw. ñu jàngat wax ji lan moo ko waral ak lan moo tax proposition yëpp ñu proposé ko ko. dinañ la defal li dinaa la defal lii dinaa la defal li na lu ngeen seq yaa nit ki dinaa la jox appartement am na lu ngeen seq foo euh, bëgg waxal ma defal la ko euh, mais c'est parce que am na lu ngeen seq mais alaaji diggante papa ak eh, doom comme ni mu ko waxee koo jàppee doom mu jàppee la papa nga ne ko bëccëg gi na ñu nekk papa ak doom mais guddi gi nii la fay demee est que du relation boobu dañ ko amoon mu rafet mu départoon lu yàgg laa bëggoon ñëw nag son yi bu ah. ndaxte gis nga na ma yàlla baal waaye tamit koo xamante ni waaw mooy li abi wax waaw xam nga xam lii mhm. li nga xamante ni moo ci na feneen lu leneen lu ma dégg loo xamante ni bokkut ak sax ak. lan nga dégg lii nii nee nañu dafa am problème euh, kii wam. restaurant bi ñu koy xeex quoi bëgg ko dindi moom lañ ko fa bëgg a dindi. man dama jii nii euh, abindu mënoon na jàppee Pierre comme ni mu ko ko waxee ne ko nañu sekk papa ak doom moom mu jël ko taf ko ci boppam ne sama papa ne sama papa la paa bi jékki-jékki waxuma ne nag am na. mais mën na jékki-jékki. non bul ne mën na jékki-jékki. xam nga fi mu toll ni tey. Ah. da naan Abou nee na mu jékki-jékki. mais bul ne mën na jékki-jékki yaa ngi. non dama analyse mais Abindour li mu wax rek. saa yu war na wax ni li Abindour xam nga c'est bu ne. Ah. Abindour nee na. Hmm. après paa bi jékki-jékki. ba tey mi ngi ci lancé li Abi Ndour wax. alaaji xa mais problème bi moom la expliqué doog a wax. lii xam nga tey am na benn revue de presse kat boo xam ne sànq ci suba pourtant moom revue de presse na lu gën a garaaw. Hmm. nee na euh, ci ci ci li nga xam ni ci ma sukkandikoo ci Ablaye Diallo moom ke kooku rek lay déglu nee na kooku nee na Atepa nee na ko su ma la nangamul. du ma la bàyyi dinaa la rek. dinaa la sànq waxi lañ bind. li Abi Ndour wax rek lañ bind mooy lii. waaw loolu lañ bind quoi liñ bind loolu la wax. loolu la journal mais bu dee kii revue moom li mu wax moom du Abi Ndour waxu ko. dëgg yàlla ah, mais mais mais kii bind mën na titre loolu. waaw waaw. Abi de ah. kii titre mën na bind c'est que dama la bëgg a wax benn affaire. waaw boo xam ni son yi bu. Hmm. dama bëgg bu baax parce que dañu nekk ci jamono joo xam ni. Hmm. yàq nit léegi dafa yomb de trop de trop de dëgg la moom yàq nit dafa yomb. Hmm. c'est il faut que tamit nit ñi. wax nit ñi nga parce que tey man mënuma nekk ak son bu pendant des années kenn dégguñu. ñu yokk ko tamit ci suuf. waaw ma xëy xëy affaire ya doxatut samay affaire commencé gëllu góose waaw léegi ma ne lay ne maa ngi wax. Ah, c'est parce que problème moo am moo tax wax di soog a am nest hmm. nga ah. génn ca bitti te ba muy neex yëpp loolu yëpp dooñu ko wax. Ah, parce que ba muy neex dara dara lu metti amul woon nag alaaji peut-être son bi dafa laa proposé loo xam ne yow arrangé wu la moo tax nga nga nga wax loolu la di. c'est dafa am loo xam ne. nga xam nga alaaji ku mel ne tey pareen saay. waaw sooy bu. waaw dee tey. waaw dañ ne tag hmm. ñu jël benn jigéen boo xam ne dama ko préféré que ma jigéen waaw fekk ne man ak ma jigéen ñi ngi nekk di nekk di yaataa yu mel ne ca leneen waaw yaa ngi dégg hmm. lu ñëw ma ne ma kii comprendre nga hmm. privilégié ko def lu ne yaa ngi dégg xëy benn bis ci biir loolu yaa ngi toroxal ay nit yaa ngi def leneen ay nit waaw yaa ngi dégg mais mi ngi mais léegi ëllëg si biir. ma jigéen loolu mu perdre les avantages parce que am na keneen ku ma kii rek mu génn daan ne waaw waaw. Ah, daf ma bëgg mais dafa yomb quand même. waaw parce que. Euh, c'est que loolu moo yomb c'est que dafa yomb quoi. li li ngay wax ni euh, li ngay wax ni alaaji benn ci groupe whatsapp yi ma bokk te doon la ko expliquer. Mm. am na ci benn waajoo xam ne li taxoon mu dugal audio yi mu doon seqeeg ndaw si ñoom ñaar ñu nekk la ñu nekk. waaw muy waaja dafaa fanaan semaine. ñooy siim seen la ñuy siim bañ fa jógee am keneen. Mm. ba mu amee keneen ci groupe ba nag ndaw sa yëg ko. commencé nag audio bu mu dugal ci groupe ba mu attaqué ko. naan ko génne leen doomu nangam bi ci groupe bi ndax day yàq groupe bi. waa ni ko nag la la mooy ba man la bàyyee jógee sa kër am keneen ba léegi mayoo ma jàmm. voilà waaw man moom loolu moom dafa am yoo xam ni yàlla mais tamit. c'est dafa am yoo xam ne ma jigéen. Ah. réew mi dafa toll foo xam ne am na jigéen ñoo xam ne sax tey. <laughs> dañ lay wax ne boo ma defalul lii ma yàq sa der nga attaqué daal non non c'est dafa am doon terrorisme boobu dafa am. ma yàq dafa da tey dafa am ñoo xamante ne bi sax dañ naan la soo ma defut lii euh, ma yàq sa der mais am na waaw am na góor ñu bari ñoo xam ne ñu ngi ci pression boo xamante bi dañoo bañ la ku yàq seen der parce que dañoo bañ euh, euh, ndaw si xëy kii parce que attention diggante mbiru góor jigéen buñ ñëwee diw daf ma doon di xool gànnaar gépp dañ naan non saay saay saay la de loolu la ñuy wax directement waaw dëgg la dëgg la directement loolu la ñuy wax c'est que il faut que nit ñi góor yu bari di def attention ci yenn yi